wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri abaat mbokk yi ginnaaw bu ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala ziyaar euh, sëriñ Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën ko wéral ñun waa Touba ci kanam la commission des finance ci sous commission gestion des fonds moo fas yéene ñëw andil leen bilan mois de février bi incha allahu rabbi di wax rek ne euh, ci mois de février bi Touba mi ngi versé quarante sept millions deux cent trois mille Wave ñu ci deux millions quatre cent soixante dix neuf mille huit cent euh, compte Orange Money bi nga xam ne mooy soixante dix huit cinq cent quarante quatre trente trois trente trois ñu versé ci un million quatorze mille sept cent vingt cinq virement wu février ci plateforme Wave bi ñu verseel ñu quatre millions trois cinquante six mille sept cent quatre vingt quatorze Orange ci dièse cent quarante quatre dièse six cent vingt et un ñu verseel ñu quatre millions soixante mille sept cent soixante Dakar versé ci bureau bi nga xam ne fa la bu sa nekk ak El Hadj Ndaw sept millions cent dix mille cent cinquante Kayar soxna astuwaaj verse trois cent mille sëriñ papa Guèye Sarr ca RTS verse quatre mille soxna yaay Fatma Dieng verse soixante-dix-sept mille moom ma nga nekk ca yarwaay Mbacke soxna ñaaw Mbacke soxna mbenn Mbacke ak sëriñ Mama Fall ñu verse quatre cent cinquante ca euh, Guy Murit ca Rufisque Serigne Maguette Dia versé soixante mille francs Bambey Serigne Abdou Fall versé cent mille francs Fouta Arelo Serigne Khadim Sow versé vingt cinq mille francs Couragement Diaroumbe Serigne Modou Makhtar Mbaye versé quatre vingt quatre mille francs Touba Soxna Soda Diop cinquante mille Diourbel Soxna Ndey Ndiaye Manel verset 756 mille Njote Siyaan soxna maam Jaara Mbàkke verset 200 mille francs Fuuta Bukki Laaje Mouhamadou Fadal Dia verset 187 mille Kellel Serigne Cheikh Diop verset 50 mille francs Goudiri Serigne Damba verset 435 mille Joal Serigne Bassirou Thiaw verset 540 mille Kaolack Serigne Moustapha Touré versé deux millions deux cent mille Kébémer Serigne Gora Sylla versé un million Kédougou Serigne Modou Lo versé six cent mille Xombal Soxna Xumma Touré ak Gallo Dieng versé cinq mille Kolda Serigne Moussa Sène versé trois cent mille Louga Serigne Moussa Bassirou Mboub versé deux millions trois cent vingt et un mille Matam Serigne Ndiaga Diouf versé quarante mille Mbour Serigne Mor Souran versé un million sept cent cinquante mille Ndop Ley Serigne Fallou Fall versé dix huit mille Moudéri Serigne cinquante mille Ndiawara Serigne Cheikh Anne versé cent cinquante cinq mille département Dagana Serigne Alioune Gningue versé quatre cent soixante douze mille Saint-Louis Serigne Ridial Seck ak Soxna Rama Fall nañu un million cent vingt deux mille Tamba Serigne Adama Niass versé na deux millions dix mille francs Sanc Bambi Serigne Khadim Niang versé na soixante mille Ngaye soxna Maguette Djité versé na deux cent soixante mille Diawbe Serigne Bara Diop na deux cent cinquante mille Thialé Kayeen soxna soxna Ka versé na cent douze mille Casamance Serigne Mamadou na quarante mille Daaru Muxti soxna Muslim Bakke na cinquante cinq mille Tawa Ndiaye soxna Nogay Kebe versé na dix Madina Touré soxna ummi Mbacke Galas versé na deux cent cinquante mille njàpp ndal soxna Abi Faye versé na vingt trois mille daaru baaxum soxna Khady Ndiaye versé na cinquante mille njubaan soxna maam Bousso Ngom versé na vingt mille francs kolobaan soxna Thiam versé na deux vingt huit mille francs euh, versement anonyme ñi nga xam ne dañoo dem ci banque yi wala ñu dem feneen dugal xaalis te du ñuy def seen i tur ñooñu versé nañ un million sept cent soixante onze mille huit cent un franc. Euh, li nga xam ne banque yi dañu ko doon jëlal weer wu ne te suñ ko jëlee dañu koy delloosil delloosil nañu ci weer wi cent quatre vingt mille neuf cinquante sept francs. total encaissement zone nationale mu ngi nekk quatre vingt cinq millions soixante sept mille neuf cent quatre vingt huit ma baamtu ko. quatre-vingt-cinq millions soixante-sept mille neuf cent quatre francs loolu mooy li nga xam ne moo ñëw ci zone nationale bu ñu demee ci zone internationale bi nga xam ne moom mooy diaspora bi dañ koy tàmbalee ci Asie Japon Cheikh Jigal Diop versé na cent quatre-vingt mille francs ñu ñëw ci zone Amérique Canada Serigne Pape Amar versé na cinq cent cinquante six mille États-Unis Serigne Souhaïbou Seck versé trois millions huit cent soixante trois mille trois cent Argentine Serigne Papa Soda Sey versé quatre cent cinquante mille ñoom seen total ci zone Amérique nekk quatre millions huit cent soixante neuf mille trois cent bu ñu ñëwee ci zone Europe bi boo demee Allemagne Serigne Abdou Salam Faye versé na sept cent soixante douze mille soixante et un Italie coordination ba nekk ci Italie versé nañ. deux millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent trente soo demee France ci coordination ba fa nekk versé nañ deux cent mille boo demee Espagne Serigne Malick Dieng verse na fa trois cent soixante onze mille trois cent trente deux francs bu ñu boolee seen la nga xam ne moom lañ versé Europe yëpp quatre millions cent trente mille six cent vingt huit francs bu ñu ñëwee ci zone Afrique Maroc Serigne Albouri Seck versé na deux cent trente mille Libye Serigne Modou Bakhoum versé cent soixante cinq mille Togo Serigne Assane Mar cent six mille Mali Serigne Alioune verse versé un million cent trente huit mille cinq cent Côte d'Ivoire Serigne Mor Fassa versé un million huit cent soixante cinq mille Gabon Ela Serigne El Hadj Fall versé sept cent soixante mille Afrique du Sud Serigne Mor Dieng versé sept cent quatre vingt dix mille Guinée-Bissau Serigne Modou Atasek verset huit cent quarante quatre mille trois cent bu ñu boolee li dugg ci zone Afrique bi yëpp mi ngi nekk cinq millions neuf cent quatre mille huit cent francs loolu mooy li nga xam ne moo dugg ci zone Afrique bu ñu seetee nag li nga xam ne moom lañ jaay ci carte yi ak ci reçu yi ci mois de février bi total bi yëpp mu ngi nekk cent million cent cinquante neuf mille sept cent seize francs kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu ñu bu ñëwee nag kii léegi jaayante assainissement bi nga xam ne dañu mooy li nga xam ne moom la ñu moom la ñu dajale ci jaayante yi mu ngi toll ci un million cent quarante mille quatre cent ma baamtu un million cent quarante mille quatre cent su fekkee cent millions yi ñu leen tuddaloon léegi muy cent millions cent cinquante neuf sept cent seize bu ko fekk see dafay nekk léegi totalu li dugg ci mois de février bépp cent un million trois cent un mille cent seize francs ma baamtu cent un million trois cent un mille cent seize francs loolu mooy li nga xam ne moo dugg ci euh, xaalis ci février ci Touba ci kanam léegi nag li nga xam ne moom la ñu dépensé ci euh, mois bii nga xam ne mooy mois de février ci euh, Touba ci kanam li ñuy wax mooy bu fekkee ne dañu ñëw ci chantier yi dañuy tàmbalee ci Daaru Xadim Daaru Xadim ñi ngi fa dépensé ci mois de février bi trois cent quarante mille cinq cent bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom mooy euh, université chantier université ña nga fa dépensé deux millions six cent soixante mille bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy defar yoon yi ñu koy wooyee opération defar yoon yi ODY ñi ngi dépensé ci loolu vingt millions six cent soixante treize mille cent soixante quatorze suñ ñëwee ci chantier yi nga xam ne mooy yu ndaam ci poste de santé bi ñuy def foofu ñi ngi foofu dépensé trois millions cinq cent vingt deux mille cinq cent dix bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy commission communication ci mois de février bi ñoom ñi ngi dépensé trois cent cinq mille francs commission bi ñuy woowee commission logistique ñu ngi dépensé ci mois de février bi deux millions deux cent soixante quinze mille cinq cent trente quatre francs deux millions deux cent soixante quinze mille cinq cent trente quatre francs commission logistique commission bi nga xam ne sous commission bi nga xam ne moom la ñuy wooyee leeral nga xam ne ñoo yare làmp yi ñu ngi ci dépensé vingt quatre millions huit cent trente mille trois cent vingt quatre millions huit cent trente mille trois cent yooyu li ko waral mooy dañu jënd ay lampadaire yoo xam ne dañ ko war a def ci fii euh, autoroute bi nga xam ne moo jóge ci deux voies yi jóge ci croisement wu garage bi wuti fi nga xam ne mooy yoonu daaru yi ci bëj saalum bi te sëñ mu Mountakha jox ñu ndigal ne nañ ko leeral ñu jënd ay lampadaire nag jënd lu war a toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukki poto yoo xam ne dañ ko jënd ñu ngi ko jënd vingt trois millions cent vingt cinq mille huit loolu moo tax bi dépense opération leeral toll ci vingt quatre millions huit cent trente mille trois cent bu ñu ñëwee ci li nga xam ne maanaam am na ay restauration yoo xam ne def nañ ko ci réunion yi ñu doon def fii ci Touba ca kanam muy bi ñuy taxawal comité directeur bi te yendu woon ci kër Sëñ ga def nañ ci restauration boobu cent mille francs visit de chantier yi nga xam ne dañ koy def di yendu ci chantier yeeg yooyu restauration bi trente mille francs la am na jàppale goo xam ne jàppale nañ ko Croix Rouge ci cent mille loolu bu ñu ko boolee deux cent trente mille francs la euh, bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy reboisement foofu def nañ fa dépense su deux cent douze mille cent vingt cinq francs deux cent douze mille huit cent vingt cinq francs ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee Kër Gol ak Boobaral ñuy soxna yi defar foofu ñu ngi leen fay ci lu tolloog cent quarante mille francs ci mois de février bi Euh, bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom lañu def ci massification muy ay réparation ay stand yi ñuy defar yooyu fay nañ ci dix huit mille francs li nga xam ne moom lañ def ci frais mu jëm ci bureau yi muy bureau Dakar ak euh, bureau Touba bureau Touba ñu ngi fi def euh, ay frais yu sew sewaat quarante sept mille cinq cent bureau Dakar ñu def ci six mille huit cent

trois cent quarante mille trois cent vingt neuf francs la li nga xam ne moom lañ jot dajale ci xaalis yëpp ci mois de février deux mille vingt et bi mi ngi tollu ci cent un million trois cent un mille cent seize li nga xam ne moom moo des ci diggante boobu li ñu dépensé ak li ñu jot mi ngi des ci toll ci quarante cinq millions neuf cent soixante mille sept cent quatre vingt cinq millions neuf cent mille 787 mois de janvier le 31 janvier bi ñu génn ñoo ngi amoon ci banque yi 885 millions 601 mille 868 885 millions 601 mille 868 francs la ñu amoon ci banque yi buñ ko boolee ak li nga xam ne moo des ci weeru février kon banque yi fii ñu toll ñoo nga fa am 931 millions 562 mille six cent cinquante cinq francs neuf cent trente millions cinq cent soixante deux mille six cent cinquante cinq francs mooy li nga xam ne moo nekk ci compte yi mbokk yi waa Touba ci kanam ñoo ngi leen di sant leen gërëm ci seen yàppandeel ak li ngeen xam ne yéen a ngi koy def muy jëm ci liggéey bi na leen leer ne yéen su dul woon ak yéen lii nu man tey dee su ko def kon kenn ku nekk na nga xam ne seen ñaar téeméer moo defar liñ fi lim lépp moo defar hôpitaux yi moo defar sant de santé yi moo defar école yi moo defar daara yi moo defar yoon yi moo defar assainissement bi kon Touba ci kanam mi naan la jërëjëf di la sant di la gërëm asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wajalilaahi maskani tubabat misrasmi bijaayi xayri ma nabat